tey dañuy ñëw fii ci Thiès euh, gannaaw démb bi ñu defee Ndakaaru pour xool euh, examen yi nga xam ni mooy examen professionnel yi ñu tàmbali euh, may rafet lu baax li ma fi gis. tàmbalee ko ci CEP de Thiès nga xam ni centre bu yàgg la bu nekk cité balabe ñu wax ma ne am na lu ëpp junni élèves ay ndongo yoo xam ni ñu ngi fay jàng loolu nag. lu ñu mëna rafetlu la parce que centre bobu nek na centre de référence bo xamni formé na ay techniciens yu mak ci biir Sénégal ak yenen dëkk yi d'ailleurs ma jóge fa dem Don Bosco centre de formation privé nga comme ni ma wax rek privé bi aussi ñomit ay partenaire ministère bi ay partenaire état lañ parce que quelque part dañu am mission de service public jaadu na ci état ñu dem seet len taxawu len président de la république décidé d'ailleurs ci bir mbass mi jàppale leen ci ay koppar yo xamni danaka toll na ci ñetti milliards euh, ma mujje fi ci lycée technique euh, bu Thiès nga xamni ni joyau la ci formation professionnelle ni defoon fi danaka fukki milliards euh, gis fi aussi gone yi di jang ma profité rek pour centre communauté éducative bi nga xamni yépp yëpp gannaaw mbas mi ñom ñoo taxaw pour que tay jang bi mëna continuer fi ci Thiès ci lycée bi ma ma dem visiter xalé yi nga xamni ñi ñu ngi nekk terminal ma gis leen ñi def sen composition deuxième semestre pour waajal sen baccalauréat lool nak buñ ko mëné parce que volonté état la mais aussi euh, partenaire éducation yëpp japp nañ ci ci des moy ma ñaanal xalé yëpp ñu jeexal année bi ci jamm dess sen examen mais appel bu ma lancé rek moy que ñi nga xam ñun ñi ngi nekk ci formation professionnelle <coughs> tey président de la république dafa décider formation professionnelle bok ci levier yi nga xamni ñoy ñooy suñu émergence donc euh, la balle est dans notre camp comme je dis xalé yi mo wax leen que ni am métier baxna waye nak am liguey baxna way am sa liguey bop mo gën ñu wax ñaax leen pour que ñu dem ci li ñu tuddee entrepreneuriat suñu paree sen jàng. xam nga président dafa am euh, programme bu mag wax na ne 45 centres de formation ci département bu nekk li ma gis Thiès baxna parce que ñetti centres yi ma jotté visiter wané né économie Thiès mu tëddee non donc euh, Thiès dina am benen centre de formation bu bees bo xamné ci 45 yi la parce que ñun tabaxatuñ centre rek wala formé tuñu rek pour former dañuy former lu dëppoo ak économie bi nga xam fi lañ nekk donc dynamisme économique Thiès war na tax ñu def yeneen centre yu mel donc Thiès incha allah dina am centre bu yees ci 45 centres yooyu président